li ma lay laaj rek lenn la laajuma la si combat bi noo gisee saison ren. ah sant yàlla neex rek. neex na ni. macha allah. papa bëre woo neexul. waaw mais man su ma bëriwul sama morom mbër yi bëri nañu. man suma ma bëriwul mbër bu bëri rek mel na bëri na sa combat moom la ñëpp doon xaar pendant trois ans. waaw waaw mais yàlla loolu la dogal comme ko taxawaat na ñaan yàlla bii rek yàlla si jàmm mu egg si jàmm yàlla may ñu ndam incha allah rabbi. sa combat dafa nduróog combat bee. ban noonu. Euh, Ukraine ak mooy Modou Modou ak Ama ak xaw ma. xaw ma Israël ak Palestine. mais gars yi dinañ jox tànk jàmm mat incha allah. kat Palestine yow wala moom mooy bu gën a yàgg non bee moo gën a yàgg Ama bi moo gën a yàgg de ah. ah moo gën a yàgg boobu Ukraine la ak yow yow la yow Ukraine waaw mais Poutine. waaw ah? <laughs> waaw mais gars yi dinañ si dox tànk jàmm mat incha allah. na am ak jàmm. amiin bu narul jul jàmm yàlla bu mu am. amiin amiin amiin waaw man bee moom bëgguma ko. benn ne la Palestine ak kii. Hmm. Euh, Israël. mais daa war a am nag bëgguma ci dara. daa war a am. non fitna. non non du fitna yow bëree goo ngeen di xeex. non non day am. non day am si jàmm sax. dina am mbëri dofuñu. Ama bëgg na bëre. bëgg na bëre. man bëgg naa bëre. Siteu bëgg na bëre. bu ñu changé. boo doon am message booy lancé làmb ji muy ñun reporter mbëri CNG arbitre yeeg tëggkat yeeg woykat yi surtout les lutteurs. man message ñu xam ne moom làmb benn familla la kenn mënul dem bàyyi sa morom bu kenn manqué rek lamb ji du am kon ñu ñëpp nañu fexe joxante cër yéene wante rek moom solo. ta ñoo ko moomal suñu bopp gis nañu ay supporters liñ fi def. mu ñaaw loolu ñëpp di ko ñaawal. waaw loolu du yoon sport day boole. nee na jàqale te it amour moo ñu dugal ak passion kuy ñëw rek xam ne sport la. tey daal temps yi dafa am ay mbër yu bëri yoo xam dañoo am xaalis léegi talatuñu entraînement Papa Sow ci la bokk. non li li li ñu naan la diw soo bàyyi diw boobu doo doon diw. waaw dañu gën a rek. te gis nga fi mbër bu entraîné wu de mbër yëpp mbër yëpp mi ngi entraîné. non kii woon saa waay gi nii entraîné wu. voilà ancien couloir la. ancien couloir la. ancien couloir